di charmer opposition ñu ngi nekk di charmer pouvoir bi di wut ay député mais ñi nga xamante ni mooy majorité bi président Macky Sall tey ci loxoom muy député mi wóoruñu am na ci seen biir ñoo xamante ni si euh, am na guerre de positionnement bu nekk ci seen biir. Mm-hmm. parce que am na ay leaders yu nekk ci seen liste bi bu nu ko waxul ci suuf ñu ngi koy gis ci kaw Amadou Ba Mimi Touré Aly Ngouille doon nañ ñoo xamante ni si mun nañ ñoo président Macky Sall ñoo ànd ñoom ñëpp ñoo ànd mais am na luy dox ci seen biir loo xam ne ak booloo amu ci da koy for ci wewu bay ndax xam nag bu dee kenn la tànn ci ñooñu ña ca des danañ ànd ak moom y a problème parce que la Cheikh defoon discipline de parti lañ waxoon dugg ci biir ànd doon ay allié waxtaan ba tënk génn mu ñëw àndul ci Moustapha Niasse déposé candidature am am mm-hmm. dix voix tey jii la majorité comme ni nga ko waxee une majorité courte très courte d'ailleurs dont la différence est faite par un seul député loolu tey bu ñu demee ci biir assemblée ba keneen daal di taxawee taxawaay boobu noonu et le vote est secret à travers l'enveloppe mhm. bu ñu ca amee yu dérouté rek il n'y aura pas, il y aura pas euh, la présence de l'Assemblée nationale du côté de la coalition Benno Bokk Yaakaar alors alors euh, honorable sànq euh, euh, mi ngi koy wax Adji Mbergane ne lii dafay firnde li nga xamante ne moom mooy seen intérêt ngeen jiital moom noonu la ko jàppee moom moo tax ku ci nekk samp ndëndam pour bëgg jiite li nga xamante ne moom mooy pencum ndaw réew bu Sénégal lan ngay tontu ci loolu mais également est-ce que yenn candidature yi nekkul rek figuration parce que gisoon nañu quand même Moustapha Cissé Lo bu ñu mënee tudd mi nga xamante ne sampoon na nenam après mu ñàkk peut-être njiitu assemblée nationale mais il se retrouve avec le vice-président de l'assemblée nationale maanaam samp sa ndënd euh, wane sa bopp euh, tiitalaate pour après ñu jox la vice-président de l'assemblée nationale. waaw honorable bu waxee loolu day ko neex rek parce que xam na ni man moom xam na baax sama taxawaay sama doxalin sa assemblée. man pendant juróomi at yi sama salaire ensemble jëlu ma ko kon ban intérêt man laay am ci ensemble national bii ni nga xam ne fukki a juróom lay diire xam nga man kenn xamul kenn ku nekk mën naa wax ni man li may am du ma du man naa ko jëlee ensemble kon amu sa intérêt mais li am solo moo ñëpp amul ambition doon nit ñi da nga war a am ambition xam ne yow lii nga bëgg li yàlla dogal ëllëg nga xam ko. xam également sa profil. voilà xam sa profil. loolu aussi loolu mooy naam mais. sa profil kenn mënul wax si Sénégal. Hmm. même ba si président Macky Sall. Hmm. ku ma gën profil. sa profil moo gën am bu Ahmed Aïdara. man waxuma xam nga sax de. man dama lay laaj parce xam nga la moo tax may. même sama profil moo gën profil Moustapha Niasse mi fi jógee. mu gën a leer moom mi nekkoon président assemblée. parce que nee ma ndax lan. doomu taal j'ai cité Ahmed mais mën naa cité Mamadou Lamine Thiam mën naa cité également euh, Barthélémy Diaz non maanaam maanaam maanaam dama mhm. jéggi ñooñu pour mu wax la dama am profil boo xam ni képp ku ma présenté président assemblée nationale c'est le meilleur profil hmm. le candidat de pouvoir et le candidat de position mais loolu lépp nag teewul ma wax la ne intérêt peuple bi moo ma gën a loolu loolu nga jax na gis nga ñun mën nañoo am ay bëgg-bëgg waaye fii yëg la neuf benn candidat la ñuy am opposition quatre-vingts députés yëpp moom la ñuy wote lu mën a am fii am ko. benn rek ngeen di am c'est sûr. man moom laa bëgg te itam si li ñuy liggéey. Mm. te bu ñëpp melee ni man moom la ñuy am parce que il faut que ñu bañ a nax Sénégalais yi. parce que coalition yi muy walla muy yeew yi bi nga xamante ni ñu ngi waxtaan ko def intercoalition bi ñu toogee leader dañu wax ni est-ce que dañu bëgg yéen leader yi yéen ngeen nekk ay député walla da ngeen bëgg ay changement. ñun ñëpp ñu jël engagement ni ñun bëgguñu nekk député changement lañ bëgg ñu ne kon nag kenn ku nekk bàyyi li nga xamante ni mooy sa intérêt. ñu defar liste intercoalition bi. bi ñu defaree intercoalition bi ñu xool profil yi nga xam jàpp nañ ni même bokkuñ si parti bi nga xam defe nañ ñoo ëpp doole mais buñ leen jiitalee mën nañu a exemple comme man ndax ku ne xam na ni Touba nit mënut a gagné élection Touba te àndoog man loolu yàlla dogal. te man mouvement laa yore tey boo demee ba PDS nangu la jiital yeew yi nangu la jiital xam na ni population bu Touba am na au moyen loo leen ji loo leen jëriñ loo nekk ak ñoom. Mhm. te loolu képp koo xamee soxoroo ci réew bi xam nga ni Cheikh Abdou Bara Dolly au niveau taxawaay bi muy taxaw ci population bi ci assemblée ak ci population bi wàcc ci suuf jël alal alalam bokk ak ñoom. Mhm. kooku amu si keneen loolu moo tax ñu jiital ma ban ma jiitalee tamit leen doon seen si man jox naa leen lu ndax élection député local benn élection sa am Touba génn fa 109 mille voix musa am kon loolu fekkente ne am na mais malgré que loolu lépp am teewul ma ni entre peuple bi ñu am benn candidat mooy li gën te mooy li ñu gënal ndax la ñu waxoon ba ñuy def investir waxaat nañ ko bi ñuy posé candidat est-ce que dañuy posé candidat yéen da ngeen di posé candidat pour bëgg nekk président assemblée wala da ngeen a bëgg maanaam. présidence assemblée nationale pour askan wi man see gis seen bopp réponse bi oui pour askan wi su boobaa nag léegi kon ñu ñeent wala ñeneen ñi kenn wurul taxaw ni man damay jàpp damay ngoy fii du ma bàyyi kenn wur def loolu mhm. loolu ma jàpp ni bu waxtaan amee comme ñun ñu ngi war a waxtaan xam nga waxtaan ma nga nekk ba ginnaaw suba ndax mhm. ñun la neuf incha allah dañuy def séminaire danañu waxtaan taxawal suñu groupe séminaire yi kon ñaari côté yëpp séminaire yi ñaari côté non parce que ñun ñun ñun ñun ñun ñoo ko njëkk a jàpp ñi xam nga parce que ñoom moom seen séminaire duñ fay parce que Macky Sall moo recevé hôtel méridien yëpp fa la dajee joo ko mooy loolu moo lay wane ñun bu ñu dajee bu ñu waxtaanee avant le neuf le neuf mooy daj précis ñun dañu am benn candidat yu soxla benn candidat boobu nag bu ñu si àggee dafay nekk candidat boo xam ne candidat transition ndax fi mu doon nii mhm. assemblée nationale fukki weer juróom-benn lay diire ba juróom-ñett mhm. parce que même ñun 2024 bu ñu gagné ñun opposition bi dañuy des ñun man ak moom dañoo bokkul man dama am liberté département fal ma moom Macky Sall la ko fal parce que moo ko toog bureau jël ko dugal ko ci liste national loolu moo waral ñoom ñu nekk liste national tey bu ñu ñëwee assemblée parce que poste yi ëpp solo yëpp ñu nekk xaritu Macky Sall te nekk liste nationale ñoo ko occupé bàyyi ñi nga xam ne dañoo deeyante nekk si département bi exemple ma lay jox mooy élection yi passé ñi nga xam ne dañoo nekk membre de bureau assemblée nationale boo jëlee maanaam fukk juróom-ñett ñëpp ci liste nationale lan fal ñi nga xam dañoo xee département yi ñu tegal leen si ginnaaw est-ce que loolu dana leen neex même bu ñu ko waxul moom mi bi ñu koy fal mu nekk vice président groupe parlementaire moonte pourtant groupe bam neexu leen woon te am xamante ne bi ñuy wote groupe bi ñuy wote ñoom wotewul ñu leen woteel kon loolu dafa lay wane rek chaque jour que dafay am. ndax liberté bi nga xamante ni moo am si ñun amul si ñoom ñoom dañu leen a tënk ñoom Macky Sall moo yor maanaam maanaam muraakeem yor kaaneem boo àndee moom ci li mu bëgg mu jox la si muraak boo ànd moom mu rëqas di comme ni nga ko defee Cheikh Diop fii may wax ak yow Théodore Monti exemple la si. bi mu taxawee ci ay loi yu Assemblée nationale arrangé wul askan bi mu taxawee lànk dañ ko génn groupe parlementaire te moom pourtant xaritu Macky Sall la woon de dëkk kaw la teg si nekk te boo xam ne la muy wax ci assemblée da leen di sax mu ñoom mujj xamuñu ko parce que xam-xam bi mu yore. kon jàpp naa ne il faut que tamit ñu suyewaat ci li nga xamante ne askan matuñu ne ndax ñun képp ko ragal dangaa yeb yàlla mais nag. mënuñu bokk taxawaay mënuñu bokk daanaka koo xamante ni yow bu Macky Sall daanoo nga torox bukk la ki nga xamante tant que Macky Sall jógu fi doo am alal man bu fi Macky Sall jógee laay tàmbalee am alal. Ah, lan <laughs> waaw rapidement honorable balaa ñoo dem ci beneen point déjà dama koy préciser la mhm. Théodore Chérif bi muy génn euh, bi muy pare nekk député ba léegi nii euh, ba tey quitté wul groupe Benno Bokk Yaakaar il est membre. du group Benno Bokk Yaakaar. ma leeral ko loolu. Eh, doxul deuxièmement. doxul ñoom seen candidature. intéressé wu ma sax à Sénégal la dem de. bàyyi non non non non waaw mais. mais leen taxawal contrat de. waaw mais toutefois toutefois il a jamais. Fatou Abdou a jamais musul wax nekk. ba pare à Sénégal nee nañ moom à Sénégal ñëpp xam ne ah, c' ah, ah, est de l' opposition donc. Théodore et mais ba tey rek mais mais tant que ñu ngi waaw groupe parlementaire Benno alors seen candidat sama intéressé wu ma mais dafa am lu wax sànq nee na moom sama ëpp profil président Moustapha Niass xam nga moom il a été un bon parlementaire. kenn du ko kenn du ko ko kii daal bañal Cheikh Serigne Abdou mais na dem ci article bi nga xam ne mooy article euh, ba ma juumul neuf ak dix. Mhm. tey neuf dañ naan balaa ngay fal article neuf ma intérieur balaa ngay fal président assemblée le doyen d'âge bi nga xam ne sax mooy njëkk a toog pour bu ñu organiser élection bi dañ naan ko c'est lire et écrire profil bi da ci am solo. Mm-hmm. c'est lire et écrire. il suffit pas d'être un bon ku nekk président assemblée nationale profil dafa am solo. léegi moom loo bëgg a wax xam nga ñun profil bu ñu amoon. xam nga léegi loolu loolu dinaa ko weddi parce que dafa am loi ma rek. waaw am benn loi bu bees boo xamante nii ñu ngi ko def wote ci li nga xamante mooy code électoral bu mujj bi. ministre bi nga xam Omar Gueye bi mu ñëwee assemblée nationale ci commission de loi man maay vice président dafa wax ni dafa wax ni loi bokkul ak règlement intérieur loi boobu noonu dafa ni lire et mais ban liir la wax waxul français même moom ban ko laajee dañuy même sàppone boo ko déggoon sàppone nga dégg ko man ko làkk nga dégg anglais ak espagnol man ko làkk am nga droit nekk candidat ah, Omar Gueye moo ñu wax lii mais lii waxul ah, français lire écrit mais waxul français bi seer lire écrit officiel mais langue ba langue officielle ah, non mais yow tamit non la langue officielle alors kon profil bi amoo ko. <laughs> waaw seen candidat ça ça m'intéresse même pas votre candidat. amoo profil bi mais amoo profil. d'accord déjà ñoom dañu sonal seen bopp. pour ñu nekk président assemblée dañuy solo seen bopp mu mënuñ ko nekk. dafa am lu sama frère wax Serigne Saliou. su nga le cas de Cheikh Diop bàyyi bu ñëw assemblée nationale posé candidature dafa annoncé woon ne il serait il serait candidat c'est-à-dire bu dee ñun dans Benno suñu position. alors duñ ko nëbb. ñu dem ñu dem dañuy def dem à visage découvert man dama bëgg a nekk candidat damay wax dama bëgg a nekk candidat keneen aussi ñu ngi fi ñëpp kenn taxawul ne candidat la. ñu ngi fi lim ñëpp. Hmm. bi ñu présenté recevoir ña nga toog kenn jógu ne candidat la ñoom ñëpp dañ ne président ku jël parole nag ñoom ñëpp de ñu ngi fi ñëpp. quand ils ont pris la parole ils ont dit au président yow jox nañ la carte blanche.